daxalal janna rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw buñ julee sant bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne du waxee ci bànneexu bakkanam ne bépp soxna soo xamante ne euh, danga faatu waaye bi ngay faatu yaa ngi am sa mbor sa euh, ngërëmal borom kër waaye sa ngërëmal borom kër googu mu ngi ànd ak ngërëmaane suñu borom nee na yow de boo dee àjjana nga jëm gannaaw loolu ñu ngi leen di di leen ziare bu baax a baax di ñëw si seen xadis bi nga xamante ne moom lañ leen di amal ngeen ci ànd ak seen page bi nga xamante ne moom mooy Barham Universel Media ñuy ñëw nag tey di indi li nga xamante ne moom mooy xadis bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi moom moo ko wax ne ayyuma imraatin xarajat bi xayri izni zawjiha nee na ayuma imraatin xarajat bi xayri isni zawjiha kaanat fi suxutillaahi xattaa yarjiw nee na bépp soxna soo xamante ne yaa ngi génn sa kër te bi ngay génn tàggawuloo ki nga xamante ne moom mooy sa borom nee na yow de boo génnee yaa bo nee na yow yaa ngi ànd ak nga xamante ne moom mooy mer suñu borom ba noonu ngay uh, duggaatee te ñun ñëpp xam nañ ne ki nga xamante ne moom moo ñu war a protéger tey mooy suñu borom tey jii booy génn tey nga ànd ak mer ki nga xamante ne mooy ki la war a porté ki la war a protéger euh, xam nañ ñun ñëpp xam nañ ne euh, suñu borom moom moo ñu war a protéger kon tey jii kooku bu ñu meree tey jii euh, xam nañu kon bu baax si ñu mën cee bàyyi xel bu baax a baax surtout ñun ñi nga xamante ne ñu ñooy jigéen ñi ñuy ñuy faratal li nga xamante ne moom mooy tàggu bu ñuy génn suñu kër kon loolu la ngeen indiloon ci li nga xamante ne moom mooy xadis bi ala laay fale tawakkalil muminin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika